ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bàmba woote ne buñ ko wuute te digle ceeti bernde di màggal 18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rekk di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na li moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal murid yi jugleen waaji safar yaan ci bernde ak ñaanu jekku magal murid yi jugleen waa ji safar yeen ci bernde ak ñaanu jekku magal waroon na kuy ñëw Tuuba muy aw ñam wa da koy aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam yi ci hôpital yi ak prison yi ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal gu dëggal dees na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful warum ki woote màggal bamba danoo moom am nu ku moom nañ toppi digleem te fonku màggal bamba danoo moom am nu ku dul moom nañ toppi digleem fu mbooloo dajee di booloo nañ jéema booloo waxtaani màggal gàcce gënu rëy nga nekk fii xëy ba bis bi doon tey ngay gën ci màggal gàcce gënu rëy nga nekk fii xëy ba bis bi doon tey ngay gën ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi bernde mooy mbir mi berndeel bul ne jigéen la te bul ne ndaw la ak sant yàlla bawul ko am xel ne jigéen la te bul ne ndaw ak sant yàlla ba wul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak dawlu bon la rek ka di màggal sant leen yàlla mi may ma lépp te jox ma bis di màggal ku sant ndolleen di ñëw te ndolleen nu yàlla dug neen nañ fonk màggal ku sant ndolleen di ñëw te ndolleen nu yàlla dug neen nañ fonk màggal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña ku dëkk ba yaatal xolam ba ganam ña te wàcce lal yi te génne neeg gi dugg ci waañi te jéem a suural te wàcce lal yi te génne neeg yi dugg ci waañi te jéema suural lépp lu saf neex wuti ko tey soom dax ak lëx fajaru màggal lépp lu saf neex wuti ko tey soom dax lëx fajaru màggal ataaya naana ko mag banaana ko kaana naas waajal ko màggal ataaya banaana ko mag banaana ko kaana naas waajal ko magal ka suukar fanta ko kaanjar luy dem ci ay biir waajal ci magal ñu afraay xar defar ko bam ñor di dana lay war moo baax ci magal wutal ginaar saaf teraaf ko bam saf boole ci ay yëf ci bisu màggal lépp lu sedd neex sell tedd na ko jënd mu dem ci màggal na ñépp suur lool te mandi lool lool te sant lool lool ci bisu màggal bu kenn jàmbat lépp na xëy mat bu kenn xeebit lenn ci màggal bu kenn jàmbat lépp na xëy bu kenn xeebit lenn ci màggal na kër yaatu na xol yaatu na mbég mi yaatu ci bisu màggal na kër yaatu na xol yaatu na mbég ci bisu màggal dalu sareet yi ak dalu kër yi nan yem ci biir yi nanu ko waajal ne fépp maase neex lépp maase jag ñépp maase sant ko gi jël yal na nu jekku màggal ta jekku lépp te ngëpp ko te mën a màggal yal na nu am jom ndax nu bari ndam lu rëy ci xëdim ji woote màggal